ci la koy wax nit soo amee compte soo amee compte. plus nit ñi di bari. plus euh, ngay def ay placement de produits. après dañ lay fay. d'accord donc ñàkk doylu bi. ci réseaux sociaux yi dina tax nga indi mu indi loolu ngay dem bay wane sa yaram. Mm. wala ngay dem ba di pirater compte jàmbur. pour mën a jël ay followers am bala muy sori tuuti pour gën a mën a xam. Mhm. soo ko wanee. Mhm. ñuy suivre compte bi yëpp koy gis. ah waaw. wane sa yaram la wax de. waaw exemple. wane say awra. non non non non non je dis pas ça. nit ñi solo affaire yooyu quoi. mën mën nga solo d'une manière extravagante ba nga xamante ne. Euh, da ngay attiré les gens vers ton compte. ñu lay ñu suivre loolu benn exemple kese la am na ah, yeneen ak yeneen. da ciy accroché wu kii ngooy rek moog yow ba. topp topp boo xew émission bi. waaw damaa yaakaar ne kii kii xaawiku lay wax. moom xaawiku de. am na ñu koy def. moom laay wax de. am na si pour ñu am ay vues. bien sûr waaw Sénégal. si bien sûr bien sûr. wane seen awra. bien sûr. kan ko fi def. illaahi ay. si ci Facebook bi wala. non non ban Sénégal ban Sénégalais moo fi def di def am. laa illah ba def taatu neen toog di def. mais ñaata yoon nga ko fi gis. musuma ko gis. <laughs> Ah, mais donnez des preuves. heureusement heureusement moom. ah ma ne. ñi fiy saaga def ci kaltoon di di fecc. xam nga kii dafa ne am na ñoo xam ne ñi ngi jaay seen bopp. pour attirer les followers waxul jaay de waxul jaay. non su ma jaay mooy dañuy di wane seen awra di wane si pour gars yi seetaan leen. mais ma ne ban Sénégalais ngeen def a le gars là le la dernière fois. lan la fi def il a mis de l'argent pour ñu fecc. kooku Adamo boss de négri xaw ma. muy fi caleçon kese. mais gis ngeen ko ci Instagram bi. mais am na. <laughs> mooy kii saaga waat kii saaga waat bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi non dafa nañu tudd tudd waaw bàyyi leen jàmm il a fait xam nga lay bañ xam nga lay bañ ah? ñu ne kii def na te deful dugal waaw bàyyi leen jàmm bàyyi leen jàmm caleçon waaw ma ne en caleçon waaw sénégalais waaw tudd tudd jàmm waaw après ay bàyyi leen jàmm di fecc waaw bàyyi leen ko di téye ci caméra ci ci caméra bi daf man hier dafa def ko avant-hier ñu ngi koy dañ koy dañ koy indi waat di ko tegaat ci ci ci ay jigéen yu fecc ndegaan ndegaan nee na. doylu c'est la philosophie des pauvres. et nee doylu maanaam xalaatu way ñàkk yi la ñi ñàkk nee na doylu waaw. Mhm. c'est la philosophie des pauvres. Mhm. nu mu tudd Mbegaan. Ndegaan on va revenir sur ça. non négal ND ah. quelque ndegaan ND ou mbegaan. papa. ndegaan laa la wax. ndegaan d' accord ND e ndegaan d' accord ndegaan. waa Ndengeleer lu mu am. ndegaan nee na maanaam ñaare. c'est son point de vue. ba waaw loolu la gis. voilà moi je suis pas d'accord nee na pauvre yi. d'accord tu peux ne pas waaw nee na aw lay la ci pauvre yi. c'est la réflexion. c'est la réflexion qui compte. xam nga tax mu ne c'est la réflexion des pauvres. c'est la réflexion des riches aussi. ils en veulent toujours plus. non non xam nga man fi mu waxee. répète non gouvernant non gouvernant. répète les personnes riches qui n'en qui qui en veulent toujours plus. bay piétiner bay piétiner les plus pauvres. waaw bay piétiner les plus pauvres. ñaari côté non kii ne la Sophie Sophie may ma tuuti. répète encore la phrase. papa papa papa papa papa. répète encore la phrase dañuy demee ci sens bu ñu neex. waaw débat bi day demee ci sens bu ñu neex. on va essayer de s'organiser. léegi dañu bàyyi Khadija mu wax suñu paree. Benoît wax comme ça ñu mën a ubbi débat bi. Mhm. ngeen mën a échangé d' accord mu toll nii suuf euh, Khadija ñu bàyyi la nga donc maa ngi doon wax si euh, ñàkk doylu ci réseaux sociaux yi. Euh, am ay followers yu bëri tax ngay dem ba di dépasser les bornes. Mhm. wax naa si jigéen ñi dem bay wane seen yaram mu dem si ñoo xamante ne góor ñi. vulgarité bi am léegi ci réseaux sociaux yi yow booy def vidéo di nga ci saaga dix millions de fois. mais gars yi dañ lay suivre da def ay direct nga am 10 000 personnes yu lay seetaan euh, xëy na yaa ngi wax loo xamante ne am na njariñ de mais vulgarité bi ci nekk moo moo ko dul jaar en fait. mais loolu c'est juste mais, mais, pour mais mais Sénégal quand tu es là pour leur dire des choses yoo xam ne ça tient la route. Euh, tu as peut-être quelques vues. quelques vues dinaa ñëwaat ci yow voilà non loolu. coach dinaa par exemple li nga xam ne dafa dafa ça touche la sexualité. Mm-hmm. wala da ngay saaga wala yenn affaire yi tu as des vues. moo tax euh, xam nga tax ma tuddee ko c'est par rapport à la demande en fait. c'est ça il s'adapte mais su ma nee ñàkk doylu. parce que man dafa am ay nit yu may message des fois naan ma mais yow tu sais que mën nga am beaucoup plus de kii pourquoi pas ngay def ay vidéo maquillage pourquoi pas ngay def ay kii ma ne leen euh, man su ma defee direct ci benn thème benn nit kese di ma seetaan ma am dara lu ma changé ci moom je suis contente. Mm-hmm. moom ma gënal 10 000 personnes yoo xamante ne dañu may seetaan dañuy ñëw xool rek dem ñu ngi xool li ma sol wala ñu ngi xool euh, tey li ma li ma quelque chose de d'artificiel mhm. mais xool xooluñu exactement man le but le fond man moo ma gënal je préfère la qualité à la quantité donc euh, loolu laa tuddee d'accord merci Khadija Ben premièrement si yow li nga wax sànq mhm. mais loolu am na ñoo xam ne ça existe précipitation moo tax ñu ne leen doyluñu mhm. parce que dañuy gis léegi bëgg a tëb ah dem Z suba du ambition la ñu am mhm. mais gis nañu nit di réussir ñu ne ñoom suba suba dañuy réussir mhm. ñooñu doyluwuñu c'est la réalité li waa ji wax mu nekk c'est la réflexion des. c'est la philosophie des pauvres. je vous donne un exemple. Mhm. kan moo fi toog sànq ne ñun Afrique dañ lay freiné parce que dañ lay ne amagoo bijaaw. Mhm. mënagoo tëb tabax étape mhm. donc. Sophia am na ko si wax. waaw man man ak Safia yaa donc écoutez fan la waajooju di wax. et man je dirais qu'en Afrique li mu wax sax ñun dañ ko méngoo. xam ngeen lu tax. voyez ce qui se passe dans le monde on est que des ñun dañuy Afrique Afrique bi yëpp laa dañuy. folo ay spectateur lañ. ay spectateur lañ. Mhm. corona est la dégg ngeen Afrique fan lañ si jéem a ñefee pour créer loo xam ne vaccin wala loo xam ne loo xam ne dina faj dama leen di laaj. est-ce que ñun ñoo ko war a utali sañu bopp. mais ñi ko am sax jël nañ leen yóbbu neutraliser. non non non xam nga Safia ñun lan lañ defar. waroon Artémisia on mais yow sa santé dafa yànq. on a ça j'ai dit sa ah. dama leen di expliquer. non dañ lay tamit li tax ñoom mënuñu que bi mu waxee bi mu waxee c'est la science des xaw ma des pauvres. ñu bari balaa ngay génne vaccin am sa santé baax. ma ne ñun on on euh, euh, mu neex ñu naqari ñu on est des followers. Mm-hmm. donc loolu waa ji wax. on doit se réveiller pour xool ñun lan la ñu mënal seen bopp suñu bopp suñu waxee ñu ne on a les potentiels lan moo fi def les hommes lan moo des léegi je vous demande je vous pose une question qu'est-ce mhm. donc li waa ji wax man il a parfaitement raison mhm. su ma ñëwee si thème bi muy thème bu riche au Sénégal comme ni ko coach Sophie euh, ak euh, Khadija waxee am na loo xam ne peut-être xaw ma ndax ñemewu leen ko wax tu vois ay parents yar la te doyluwuñu sa papa ak sa yaay. Mhm. yar la te doyloo ñu. ci naka. di gis y' a combien je prends l' exemple des immigrés y' a combien d' seen pap walla seen yaay lor na leen si doyloo ñu. Mhm. beaucoup d' immigrés nañ si loolu nga gis immigré boo xam ne day liggéey matin midi soir yëkkati jox xaalis jox baayam ne ko bàyyi dama bëgg nga tabaxal ma bàyyi ba ne ko tungaan takk si jabar. waaye boobu est-ce que doylu na parce que on est au Sénégal am na loo xam ne dañuy ne buñ ko wax mais nañ leen xuus si au fu sori fa foo xam ne fa la góom bi nekk ñu faj ko parce que li ñuy waxee dafa am sens bàyyi boobu de gërëmuma ko boo demee si au niveau des familles bàyyi génn àdduna ndey génn àdduna am kenn ku nekk si famille ba jël kayitu kër ga tourné ko pour moom rek yanaa combien au Sénégal kooku est-ce que doylu na mm-hmm. kooku doyluwul te c'est ça moo tax ñun suñu Sénégal tardé ñun on en retard parce que nga dem ci société yi nit ki war la defaral liggéey mu ñëw mu ne il faut nga graisser ko salaire am doyu ko boo waxee ñu ne way état fayu lu doyan mais kooku mentalement physiquement est-ce que doylu na man je dirais non et ça ça loolu retardé Sénégal fan nga mun a dem pour uti ay këyit pour ñu jox la ko dans le cadre du travail du ma ne amul peut-être boo jëlee sur cent pour cent peut-être cinquante pour cent quarante cinq pour cent et ça ça retarde notre ça retarde notre société doylu lii li ñuy waxtaanee tey dafa am sens. Uh-huh. parce que bu fekkoon dañu doylu ñun ñëpp Sénégal passé na fi parce que ku nekk da ngay jaar yoon ku nekk di liggéey pour ñu jóg si tumuranke bi ñu nekk. déjà. d'accord ku ñu taxaw tuuti. doylu leen nan ngeen ko gisee doylu. doylu mooy doylu mooy lan. voilà xam nga la mooy doylu man pour man. Mhm. sama point de vue. Mhm. mooy li nga xam ne nga mérité. Mhm. nga doylu si. bu fekkee da dem. li nga mérité nga ñu jox la ko nga am ko ba pare nga doylu ci. non non même mooy cas bi moo wax. si ngay liggéeyee. Safia ñu ne la on cinquante mille à la fin du mois. mais yow Safia yaa ngi réglé yenn marché si suuf. pour sa liggéey ñu la koy fay mais doyloo. loolu mooy yam ci li nga. yam si li nga am. léegi nag koo xam ne dafa ambitieux li Safia wax sànq bëgg à coûte que coûte réussir dans sa vie mm-hmm. di koy ñefe nag di dem de point A B C D ba am étape par étape mais au Sénégal loolu am fi parce que fii bu ñu la nee tous ces gens que tu vois ñu mm-hmm. lay ne ay businessman la ñu mm-hmm. xaalis la gis qu'est-ce que ça veut am na mais Sénégal quatre cent pour cent non je suis businessman fan la jëlee li nga xam ne la am est ce que dañ koy jaarale si yoon am na koy jaarale si yoon. mais ñaata koy jaarale si yoon. ñu dem ba xam ngeen fan. politique. regardez le cas de Paul Biya. Jimmy xaw ma nekk na président Amérique def quatre deux mandats mu topp ko. Bush pap ñëw def quatre mandats mu topp ko. Bush doom ñëw def quatre mandats mu topp ko. Mhm. Clinton ñëw def quatre mandats mu topp ko. Barack Obama ñëw def quatre mandats mu topp ko. non deux deux mandats quoi ça veut dire deux termes. ñoom ñëpp li may wax su may nekkaat bon mooy quatre ans quatre ans muy huit ans aux États-Unis c'est mais kooku ngir yàlla si politique kooku doylu na. Mm-hmm. c'est l'Africain en général. parce que intérêt am la gis ak intérêt entourage am. le pouvoir c'est pas question de pouvoir ça rend mais nit bu fekkee un peuple daf la élire. nga ne man lii laay def. ak lu mu metti metti defal loolu parce que mhm. sa valeur sa nite mooy feeñ foofu mhm. qu'est-ce qui bascule l'Afrique Afrique la moo koy basculer nos gouvernements yu yu doyluwul et ça c'est grave pour l'Afrique parce que l'Afrique ne va jamais avancer dans cas mhm. bu ñu jógee diine tubaab dañu doy lu ah. ku def sa mandat ba pare par force da nga fay jóge neex la naqari la parce que yow en âme et conscience c'est ce que Barack Obama avait dit je ne peux pas comprendre pourquoi les africains présidents di xëcc si nguur ji pour toog fa parce que nee na boo defee deux mandats ba dem da nga war a dem épargner vivre ak sa njaboot. Mhm. mais doyluwuñu. sàcc bu bëri gi si dëkk bi lan moo tax parce que dañuy respecté vie de famille aussi dañuy respecté vie de bi si dëkk bi bu bëri bi. on sofi gay qui parcourt 700 kilomètres pour dem dimbali ay nit. pendant ce temps am na koo xam ne mi ngi toog mu ngi xool naka lay triander suba këcc les petits ouvriers là. nga gis koo xam ne day am entreprise suba mu daanu gars yi dina waa mais kii pourtant il riche xam ngeen lan la mi ngi doon lekk loo xam ne parce que doylul woon te yàlla bëggul lool te looloo bari Sénégal donc doylu ça nous réfrène ban ma laaj la tuuti ban benn 88 628 92 90 mën ngeen woote dugg ci diggante baay ak doom waaw ba sax wax ne baay bi nga xam ne doom yëkkati aleel jox baay baay lekk ko mbaa mu takkee ko jabar mbaa mu def ko neneen waaw yéen Sénégal ngeen ne loolu dara nekku si alelu ganaar xaw ma nenu ganaar ganaara moom xaw ma naka ngeen koy expliquer am na lekkin woowu su ko ko lekkee kooko dara néewu ca mooy ban lekkin te mayu ko ko yëkkati nga jox ko waaw mayoo ko ko mu ñëw fekk fa soxla su rëy non waxuma soxla mayoo ko ko wala mu fekk fa opp wala mu fekk fa musiba wala balaa wala ab safaan mu yëkkati ko faj ko ca loolu duma la condamné fenn su bàyyi sàkkee ca alalu doom lanu ko jox dénk ko mu lekk ca ba alal jëddi kooku duma ne bàyyi ndaxte gàcce la goog soo fa nekkoon yow yaa koy dagg ciw yoon d'accord benn li ma lay laaj mooy ah ki ne laa démb nga fi jóge démb la papa démb la waaw ci ma dégg nu ne Ah. bëgge du mat ngor mat te bëgge ak ñàkk doyloo sore wunu de mm-hmm. waa jeeg bi yor ab nattam di ko natt di ko natt di ko natt ba borom këram tëdd opp muy natt natt ba te su ci laajee luñ ko jox ngir mu jënd ordonnance di dem ko ca jox mm. su ndee ba di ko teggil tiire ko ca mu dee mawu daal di déedéet du am daal di mii ko waale natt ba ba keroog muy teggi natt ba da ko teggi natt ba ñu toog ñaari fan ñetti fan boroom këram génn àdduna nga waaw suñ ko daan yóbbu hôpital lu nekk na ñuy def wala doon yi dem màjjaali wala doon yi dem fu nekk te mu ngi ci nattub téeméeri junni ak lu topp di ko natt mun naa te lu mu ca laaj ñu jox ko mm-hmm. waaw kooku lan moo tax doo wax ci moom lu dul ngay wax ci doom ji nga xam ne baayam dafa lekk alalam lu tax rek ngay daw rek di dal ci waajur di bàyyi doom benn ñaareel ba doom ji nga xam ne day dajale lu mu liggéey journée daal di koy dajale wut fu mu ko dugal fu mu dem su fa amee contrat lu mu fa jot a liggéey su am na fu mu ko def ba kër gi xiif ak mar di jóg ak a daanu rakk yi di ñàkk fourniture baay bi dundug wereyaan lay dund kër ga gobar jaasi la ñuy def dañuy togg añ tibb ci ab reer muy dajale di dajale di dajale di dajale di dajale ba dajale paas boo xam ne nee na mën na koo génnee réew mi moo xam am na 4 millions wala 5 millions moo xam lim ba nu mu mën a toll waa ma ne su demee jox ko nit mu ne da koy wutal visa nit kooka lekk ko yow nit kooku lekk ko ak baayam lekk ko ban moo la gënal li ngay wax ak li may wax du benn. ah kay dama lay laaj ndax da ngaa dal ci way jur. pare da ngaa dal ci way jur man ma dal ci njaboot. man pareegu ma su ma paree dama la ne. kooka man waxuma ay sunu doo ci mën a wax. xamul tax ma ne la am na fii. ma ne am na ñu dajale ay millions ba jël ko ci loxol nit. kooku kooku teg ko ci loxol kooku seen baay di dee di ëlbatiku. kooku di sukuraat kër ga du nu lekk. waaw. loolu nu dajale. mais du benn 4 millions yooyu. burung lu ne ay soxla. d'accord père burung lu ay mitit. jërëjëf biriñ lu ne ay tiis ñu dem yëkkati ko daal di koy jox kenn mu dem ne da koy toppatoo visa dem ak millions yi daal di koy lekk ba nëgë ni mënu caa jot ci millions yooyu kooku baayam lekk ko moo gënul mhm. Safia pour terminer bàyyam lekk ko moo gënul alal boo xam ne moomoo ko bu kooku daa bëgg alal boo xam ne moomoo ko suñu waxee rek nga dal ci kilifa doom bu la dénkee xaalis ci way jur je persiste doom bu la dénkee xaalis mayu ko. waaw mi ngi seq ak yow loo xam ne chaque fin du mois mu jox la sa xaalis. waroo jëfenoo xaalisam tànkal laajoo ko. Mm-hmm. foo la soxla dabee ma ne dañ yow. soxla soo xam ne kooku doylawul. soxla soo xam kooku du baay soxla dabee. soo xam du baay bu doyal. moom. attends nga may wax su doon ku jub wala ku baax mën na koo faj. ma ne su la soxla soosu dabee faj ko ca. est-ce que baay ba waxuma nga yàq de. baay ba woo na ko pour ne ko dama am soxla. dama ne waxuma nga yàq non alalu doomam la amul dara lum ko cay laaj. léegi bàyyi ma léegi alalu doomam la suñ demee ba soxla dab ko ca. loo xam ne su ko doomam fekkee moom moo ko war a faj. na yëkkati faj ko ca yéen seen philosophie la. xam nga yéen seen philosophie la ngir yàlla après waaw c'est votre xam nga non c'est votre philosophie madame yow sa philosophie xam mooy lan yow sa philosophie xam nga mooy lan mooy l'islam waxu ko waaw boo demee si christianisme waxuñu ko waxuñu la ne sa alelu doom da nga ko war a lekk sans con sans kiyam nu ma consentement waxuma la loolu de loolu nga wax dama la ne nga wax non leen ma sosal li ma wax da nga si wax dama li ma wax mooy waaw sa doom su la dénkee alal waaw nga dem ba kër gi waaw tolof tolof am juif loo xam ne sa doom su ko fekkee woon dina ko faj. waaw wala su ko fajut tit moom la war. waaw faj ko ca. faj ah ok loolu yow la. jëlal faj ko ca loolu laa wax. ma ne man en tant que père. loolu la responsable. waxuma la nga jël fooye de. sama doom. waxuma la nga jël takkee jabar. parce que li ngay wax waxuma nga saccagé wala nga yàq. waaw léegi bàyyi ñu expliqué tamit. waaw xam nga man li may wax dafa nekk loo xam ne c'est simple. bi wane na ko. yoo xanaa ubbi woo téléphone. les su ma jëlee le cas des immigrés immigré yu bari xam nga lan moo leen roy. ñàkk ko doylu certains sénégalais certains parents sénégalais. kii bu ko bàyyi muy diriger. di taxaw di wax li xamuñu li nit ñi di daj fële. dangay ngay ubbi téléphone boo toogee ñu rek xamuñu xamuñu lan la ñuy daj ah bitim réew da ngay toog fii. nit du yëkkati téléphone am woo la ne la na nga def xam la la lay wax envoi envoi. ñuy envoyé rek ndeysaan. man de waxuma lool oui la preuve. waxuma lool de. est-ce que immigré xalaatoon na Covid dina ne bëm seen kaw. man de waxuma bari sonn. parce que suñu mentalité au Sénégal. doylu ñàkk doylu boobu envers de membres de ta famille yoo xam ne dañu tukki moo leen teg loolu yëpp. waxuma lool de su ma rombee foofu. waxuma nga yàq de. mu ne yaay am na yaay yoo xam ne lor nañ seen doom parce que xamala mbumbaay ak xew. fu ñu yëkkatee téléphone ne ko yónnee ma quatre cent mille boo ko yónneewul mu mer. waxuma ñooñu de. ñu ne xale bi merum ndeykat bu la dalee dangay ngay torox. ba mu des yàq. man boog su may wax waxuma koo xam ne dañ koy jox kuy mu dajale su ma wax su may wax kañ mooy ndey boo xam ne day yàq lu doomam. bien sûr loolu kooku. kooku waa kenn waxu ko fenn si këru àdduna ne ko kooku euh, kooku mère boobu doyal na moo tax ma ne. Ah. mag dina la yar. papa dina la yar. yaa yar la te doyal parce ñoo lay teg ci réew fi may terminer Safia. si père doon waxee sànq ay nattu seen nattu jigéen. waaw benn jigéen ne ko tungaaj. waaw kooku doyluwul amul valeur. déedéet waxuma ko c'est au même niveau que ñu am ay association bari na. que ça soit à l'extérieur que ça soit au Sénégal benn nit jël xaalis boobu lekk ko wala daw. dama ne ngay natt di ëlbatiku ci biir natt bi ngay natt kër gi tolof tolof fa nga fi am ab xiifa nga fi am soxlaa nga fi am sa jëkkër tëdd na ëpp lekk sax méegoo caa jël pour def ko ca. ak sa xaalis ma koy fajee. mais doo jël alalu mbooloo mënoo ci alalu mbooloo mënoo ci ah, soxla soo ca laajee dara nu jox la. ma ne alalu mbooloo mënoo ko jël yow doylu woo. alalu mbooloo mënoo caa faj soxla. mais ragal naa laal alalu mbooloo. gis nga alalu mbooloo ni ñi bokk ko di ko natt ba si ak kenn lekk. waaw. mais yow moom ko. genre boobu la rek ki koy lekk ak ki koy tëj ci armoire di ko rocc di ko jox njabootam te bokk kook nit. nit ñoom ñaara yem. ñoom ñaara yem doyaluñu. déggoo li ma lax de. demuñu bay doyal. ki yor ab natt. non Safia teggi natt trois cent cinquante mille. cinq cent mille nga teggi ko yaa moom natt ba nga teggi ko. sa natt di xool sa borom kër. muy feebar bu sukuraat ba ëpp dee te jëndoo ca ordonnance di xool kër gi di dine ak loolu bon la loolu bokkul ak dara li may wax loolu bon la loolu ku ko def moom pire waaw ñàkk a doylu ndax nee na day yóotu alal d'accord nañu jël téléspectateur dafa doylu wut day yóotu alal au 88 628